maa ngi doon ziar bu wér. maa lépp jàmm. waay sant Serigne Touba. lan moo tax guddee waaw ñëw ci boore bi rek gars yi xam nga am lu noonu rek ah. le rek. waaw am lu noonu rek la rek. waaw. nga dugg si gis stade bi mel nii. a tant que champion lan nga yegg sa yaram. waaw sant yàlla rek xam nga ñun bëri nañ fi bëriwaat bi bii mooy suñu deuxième fois. fii nii arène. waaw si ñaan ndam lu rëy xam nga di sant gars yi topp suñu ginnaaw ñu ñëpp ku ci mel ni Pape ñoom Cheikh parce que ñoom Samba Xaar ñoom xam nga ñoom Fall ñoom gars yëpp su ma limee damay jóom dañuy sonn suñu tout le temps waaw di sonn suñuy combat xam nga mais ko yàlla dogal ndax sa waay combat bi métti woon na quoi métti woon na trop. loo ñu mën a wax ci champion bi nga war a daje. waaw xam naa ko comme nii rek nii rek comme xamu lamb rek bés mu dëree ñun waaw ndax dañuy bëri fu ne waaw isaat bu ne leen fi bëri kon laa mu dëree si ñun waaw di ñaan yàlla may ñu ndam rek. xam nga koy andil xeex wala pere.

wax gi nii man na bari na mais ci biir géew fii nii incha na leer bu baax. looy wax waa dëkk ba say supporter. waaw waa Bawol xam nga waa waa waa waa Ngathie Mbadiane waa Ngathie forage ah Kër Sëñ ñëpp seew jubba gaa yëpp a jóg Dakar xam nga ñi bari na loolu Kër Massar Jaxaay kunun galam, ah fepp ga yeb jang fa xam nga wow di siar ga yeb nak ha di len di len di len di len wax ne xam nga discipline quoi discipline ata wa ñu ngi lay assalamu alaykum wa rahmatullah yeen wa ngoy yeen wa aduna kep ko xamantene ni abonné go rek dawal ci ngoy tv nga dem abonné nga mon di setan nuñu mon di dugal nga dem setan ko inshallah c'est meilleur Ngoye TV c'est meilleur ñu leen di ziar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku si yéen